ñu ngi ak Serigne Mor Dior Bamba Seck euh, père ñu ngi leen di waaw ñu ngi ñu ngi leen di fay di leen ziar. ah réaction nga am ci màggal Tuubaa bi gannaaw suba la nga nekkoon wóolare sëñ Mourtala Mbacke gis nañu la communauté mouride bi ñu organisé chaque année euh, pour préparation màggal Tuubaa ren ci édition 2023 bi ñu ci votre commentaire. waaw yow day man ni nga xamee loolu jaaxal na ma ni nga xamee ne ñun euh, wóolare Cheikh Mamadou Moutada la ñu. Ah, moom day xanaa di ko ñaanal yàlla fu ñu toll rek moom Cheikh Mamadou Mourtada euh, ndax lii tey bu mel nii yàlla ak tax waaye nag dafa jiitu dogalu suñu borom ndax ba ku tedd ki nekk ca liggéey ba ca Gabon ci xasida gu ñuy wax wasilatul rubo ci Ahmad Bamba ma ngay wax ca biir naan laka mata biya bi shukurin warida yaa waasihan wa saxtali bi murtada te ba di wax loolu booba temps booba jamono Cheikh Mourtala Mbacke ganegul àdduna kon nga xam ne kon lii bu amee nga xam ne cërëm la ndax euh, ñooñu ñuy tudd di wax di leen dendaleeg sëñ bi naan ay takkandeeru sëñ bi lañu ñoom ñëpp dafa am mission bu la sëñ Bamba jagleel dale ko ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ba ci Cheikh Mamadou Moutada kenn ku nekk ci ñoom sëñ Falloog sëñ Abdou Lahad Mbacké sëñ ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom dafa am mission bu la sëñ sëñ Touba jagleel nga di doon ko dox waaw mission yooyu nag bokk na ci mission Cheikh Mamadou Murtada daan wër àdduna di samp këri sëñ Bàmba yi moo waral li tey ah, man ci sama jëmi bopp visa bi ma dugal Amérique Cheikh Mamadou Murtada moo ma ko ñaanal mu mel ni jamonoy tey màggal ba ñu màggalee ba ci ëllëg sama dem këram génne sama passeport jox ko ne ko Mbàkke naataw ma la yow la sëñ Bamba dëkk Amérique fa laa bëgg a dem ma bëgg bu ma delloon Ndakaaru ca ambassade ba rek ñu may ma visa mu daal di muuñ daal di ree ca xam ne man damay am visa. waaw léegi loolu euh, def na ay fanweeri at yu teg waaw. waaw kay bisimilah. waaw Euh, ñun murit amulu amuñu lu gën ci ñun màggal waaw ñun murit amuñu lu gën ci ñun màggal sëñ Tuubaa mës naa wax ne su tabaski teroo màggal teroo te amuleen leen lu dul benn gàtt nee bu leen ko lewatal ci tabaski ji denc leen ko ba màggal gi jot ngeen def ko ci màggal gi ndax yéen kat man maay seen Ibrahima yéen murid yi sëñ Bàmba nee na mooy suñu Ibrahima loolu daf lay won solo gi màggal am solo ñun liñ ci xam bariwul xanaa li ñu gis ci saay rek waaye dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dayey màggal duñ ko xam xanaa ba fa ñuy jëm ëllëg rek waaw bokk na ci nag murid yi ni ñu gëmee sëñ Bamba fonkoy ke ni sëñ Bamba yàlla moo ñu gën a fonk sëñ Bamba yàlla moo ñu gën a fonk sëñ Bamba ñun murid yi respecté bi ñuy respecté sëñ Bamba yàlla moo ñu gën a respecté sëñ Bamba ñun murid yi ndax xam nga lu tax màggal bu teroo ñoo ñuy mbugal ca safara ak di sonal suñu borom day jox ndigal malaaka yi ne leen arrêté leen mbugal mi bu leen mbugatali kenn ku nekk safara ba màggal gi jàll loolu moo woon fonk gi yàlla fonk sëñ Bamba respecté bi yàlla respecté sëñ Bamba am daal xam naa ne li ne ci xol bi làmmiñ ñu mënu ko wax ñu tënk rek ah santaat nag maam Cheikh Ibrahima Fall bu baax ndax yàlla na ko murid yi xam yàlla na ko àdduna sax xam laay wax lépp sëñ Bamba mi ngi ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall lépp di sàkku di ko ci Serigne Touba mi ngi ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nag bu ko murid yi xamee rek lépp lu ñu def danañ ci jëtal Cheikh Ibra waaw bu ko murid yi xamee lépp lu ñuy def danañ ciy jettal Cheikh Ibra di ko tëjee Cheikh Ibra Fall xanaa daal ah, ah, di ñaan rek màggal fekkewaat ko déwén déwén yu bare bare bari